yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baada sayidina moolaana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa sallama taslima mbokki réew mi ñu ngi leen bu baax a baax te di leen ziar di leen ndokkeelaat ci weer wu tedd wi ñu nekk di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi sunu kilifa di Cheikh Mouhamadul Mountakha Al Bachir di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ak njabootu Serigne Touba àndaat ak yéen ci jotaay bi ñu baaxoo ànd ak yéen ci weeru koor wi tey nag ñu tànnoon uh, jàngat ci dug Serigne Touba sunu yaakaar sëriñ Touba ak weeru koor nag mën naa ne diggante bu am solo la bu mat a waxtaanee boo xamante ni murit bu nekk am na lu mu ciy jànge ndax cofeel gi sëriñ tubaa amboon ci weeru koor rek daanaka dafa day jamono waaye nag waajal gi ko sëñ tubaa daan waajal dafay loo xamante ni lu am solo la dundal gi sëriñ tubaa daan dundal weeru koor tamit lu am solo kon ñett yooyu ñu ko gëstoo rek dinañu xam ñun nan la ñu war a jàppaatee weeru koor gi sëriñ tubaa amoon ci weeru koor mooy bëggeel gi ak ni mu ko daan dundalee ni mu ko daan waajee waajal gi sëñ Tuubaa daan waajal weeru koor dafa wax ne maa ngi ko daan waaj ci diggante Shaaban ak Rajab balaa weeru koor a ñëw ñaari weer balaa weeru koor dana fekk sëriñ bi di waajal weeru koor muy wax naan ilayhi xat tubtu fii chaabana an rajabin mujaddidan fiika fasad lii bi tarki dadi wax na ne in ilayhi xat tubtu fii chaabana an rajabin nee na ci diggante chaaban ak rajab ca laay tàmbalee waajal weeru koor balaa weer wi di teru kon kooki ta njëkk waajal na weer wi njëkk weer wi di ñëw waaye nag lana ko waral mooy sunu borom moo ko daan yëgal ne weer wi mu ngi bëgg ñëw sunu sëriñ bi doo la koy tàmbalee waajal la ko waral mooy wax na ne maanaam xibaatu man lii xaada xayra fayadaan tawajjahat lii xabla chahri ramadan nee na sunu borom dana waajal ay yiw ak i mbëgte ak i xéewal ak ay leer yu bàyyi ko ci moom ñuy sotti ko ci man njëkk weeru koor wi di teru loolu nag dundal gi mu ko daan dundal ak fonk gi mu ko fonk ko waral ndax bëggeel goo xam ne Sëñ Tuubaa amoon ko ci weeru koor yàgg koo feeñal ci ay mbindam ndax wax na ne ci yaa xayra day fi mu ngi naan inni uhibbuka yaa shahra siyaami bila ghashin fa ahlan wa tarxiban bila adadi dama laa bëgg yow weeru bëggeel goo xamante ni màgg na lool te kawe na waaye nag bëggeel gi ajuma ci dara ndax nit ku muy bëgg ku nekk da koy bëgg ngir benn intérêt waaye Sëñ Tuubaa nee na weeru koor dama laa bëgg rek ngir bëgg sa jëmm ji inni laa bëgg ngir bëgg sa jëmm ji waaye bëgguma la ngir dara dama laa bëgg rek ngir jëmmi yàlla daa bëgg yàlla ba nga xamante ni lépp lu sunu borom santaane sëriñ bi da koy bëgg lépp lu yonent bi alayhi sa wa salaam indi sëriñ bi da koy daal bëgg ngir bëgg gi mu bëgg boromam loolu yi nag yóbbu na ko ci bi muy woote yoonu murit sunu borom lënkale ko ak weeru koor ndax wax nañu ne ci atum 1883 la sëñ Tuubaa woote yoonu murit ca Mbàkke Kajoor waaye ba mu koy woote ci weeru koor la tombee ñaar fukki fan ak juróom-ñaar la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam dikkal xamal ko ne ko sunu borom jox na la ndigal ngir nga woote sa yoon wi ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat yaral sa waa kër nag ci ñu am yitte ci yàlla sunu borom waaye bu leen yarati ci jàng képp ci la sëriñ bi woote woote bu réy wa mafzahun wa iman wa man arada al loolu nag ci weeru la ko waxe woon ne sunu borom def na def na ma may kaaraange def na ma ma doon koo xamante ni ku wéeru ci man doo daanu loolu yi ci weeru koor la ko yoonu murit ci la ko sëriñ bi woote woon bi mu ko wootee nag nit ñi bàyyi koo fu nekk wuy si ko mu nekk ci liggéey boobu di liggéeyal boromam sanc ci ay barab yu bari mën nañ cee tudd Mbàkke Bawal googi mu dem fekk fa ay mbokkam sanc dëkk boo xam ne moo ko ci loxo boppam muy Daaru Salaam sanc Touba ci Touba itam nekk fa weeru koor ci nettalib sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moom sëriñ Touba wax ne sëriñ bi nekk na fa weeru koor di ko dundal ba ci lextikaaf lextikaaf nag mooy fukki fan yi nga xamante ni mu mujj ci weeru koor yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana ko dundal lixtikaaf it ñu taxaw ci ngir wax ni muy demee lixtikaaf fukki fan lay doon yoo xamante nit ki mën na koo def ci biir jàkka ji waaye wax nañu li gën a néew ci lixtikaaf mooy benn fan lixtikaaf nag ni muy demee mooy da ngay dugg ci jàkka ji def fa lu mu néew néew bis ba bis ba dellu siwaat wala nga def fa waxtu ba nga fa duggee woon ba waxtu wa dellu siwaat nga nekk fa di dundal sa diggante sa borom ci jaamu ko ci diggante jàng ak yu mel waaye nag wax nañu waroo génn jàkka ja li fekk àpp matul waroo génn itam lu dul aajo ju far mooy ku yittewoo joxe aajo wala yu ni mel lu dul loolee warut a génn ci jàkka jooji sëriñ bi nag lixtikaaf googu yi mu doon def Touba. bi mu koy def wax nañu ne ñenn ñi neen ci jàkkee daaru xuddus ja la ko doon defee waaye nag foofu la gisee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax gis gam ko gisoon ci Mbàkke Kajoor sax doonoon na gis gu am solo waaye nag gis gi mu ko gisaat ci Touba dafa gën a tee màgg ndax Sëriñ Basiiru mu ngi nettali ci bindam di wax ne foofii la gisee yonente bi alayhi salaatu wasalaam daal di wax ne awalu ma ayana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam walakin wara asitri nee na gis na foofu yonente bi gis gu am solo mu ànd ak waa ahlu badar waaye nag gis ga dafa doon gis goo xamante ne am na kiiraay bi dox ci digganteem ak moom mu xemmem nag ngir bëgg ci ànd ci kuréel googu yenent bi nekk bëgg ànd itam ci saxaaba yooyu nga xam ne ñoo ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam tax mu dagaan ko sunu borom sunu borom gaaral ko tukki bi mu waroon tukki génn ko réew mi dem ca dëkk yu sore ya ngir liggéeyal fa yàlla tukki boobee bi muy jot nattu bi ci weeru koor la ko dikkal waaye nag bi sëriñ bi génnee ci tukki boobu itam dem fa ngir liggéeyali boromam dem fa ngir liggéeyali yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nañ ne sëriñ Abdu sëriñ Abdul Ahad nettali na ne xasid ak yaa xayra day fi gii ñuy jàng bi ko sëriñ bi di bind foofu weeru koor woowu sëriñ bi amul sax lu mu dogee ci la bind yaa xayra day fi bind yaatal busharaat yi nga xamante ni mu ngi séentu weer wi di ko wan cofeel gu mu am ci moom te booba wallaahi dencul sax loo xamante ni mën na koo doge ci zaahir sëriñ bi war na weer woowu ba mat sëkk wax nañu ne xobu garab la daa doge da daan woor boo waxtu dog jot du am loo xamante ni mën na koo doge mu jël ay xobi garab tëcc ko ci gémminam ngir dundal sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam da koy dundalee sunna si yonente bi rek a waral muy dog waaye mënoon na koo woor woor woo xamante ni du ko sax bu ko dogee jël xobi garab tëcc ko ci gémminam ba ndox mi ñëw mu jàllale ko te yàbbi garambaay gi koor gi dog mu wóyalaat wóyalaat ba ci ëllëg sa waxtu xëdd jotee mu defaat lu ni mel bu ëllëgee waxtu dog mu defaat lu ni mel sëriñ bi dund na ko foofu dund ko fa digganteem ak boromam waaye nag boobu sëriñ Xaadim Mbàkke mu ngi nettali ne sëriñ bi wéetu fa woon ndax boromam moo ko doon wéttali ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye nag daana jàkkaarloog mbindeefi yàlla yi mooy lu mel ne géej gi di jàkkaarloog moom di ko wax naan ko nang ma seere bu ëllëgee ko yow géej gi seeral sama digganteeg li yashhad bi kaw nii abdaman yaxfiru zanba wa kaw nii xatiman mustapha baxrama yon ba yow géej gi nanga nga seere ne man mii di sëriñ tubaa day jaamub yàlla laa man day jaamub yàlla laa bu koy jaamu boo xamante ni yamalew ma ko ak leneen waaye nag weeru koor itam jàpp na ko muy seere weeru gàmmu jàpp na ko muy seere ndax sëriñ bi wax na ci bindam ne shahida lii shahru siyaami war rabiix bi xubbi rabbi wal xasaxal mabix nee na weeru koor ak weeru gàmm dañuy daw ba ci sunu borom dem fa di ma seere nan ko Ahmadou Bamba day ku la bëgg la Ahmadou Bamba day ku la sopp la nee na lool yi am naa ko ci darajey weeru koor am naa ko ci weeru gàmm sëriñ bi it ku ko fonkoon la doon ko dundal noonu yi nga xamante ni ba mu nekkee ci jamono yooyu mu nekkee ci xat-xat yi ak tartar yi na mu doon dundalee weeru koor bi mu dellu si ci biir mbokkam nekkaat njaareem noonu yi la daan dundalee weeru koor wi fële sëriñ bi daana woor ba du am lu muy doge muy dogee xobi garab waaye fii teraanga yi bëri na ba tund yi ko wër boo demee ci teeru sëñ Mahamadul Bachir doon na ko wax ne maanaam nit ñi dañuy bàyyi fu nekk di ñëw waaye sëriñ bi daan na leen waajal waajal gi mooy naka mooy wax na ne sëriñ bi daana daana daana daana daana gaslu ay teen daana gaslu ay teen yoo xamante ni weeru koor képp a tax bu daan ko gas ndax wax nañu ne boo demee njaareem am na fa teen boo xamante ni chehru ramadan la ko tuddee te weeru koor a taxoon mu gas ko sëriñ bi daana defarlu ay néeg yu yees te weeru tax mu daan ko defarlu sëriñ bi daana ràbblu ay basang yu yees te weeru koor a tax mu daan leen ràbblu daana farlu ci faj aajo doomu adama yi wax nañu ne bu weeru koor mosaan jub si nga ñëw ci sëriñ bi ne ko man kat dama am ajo sàngam daal na xanaa gan gi nga koy waajale daal di gaaw fajal la sa aajo jooji mag ñi bari na ci ñoo xam ne dañ daan bàyyi ba weeru koor jub si ñu ñëw ci sëriñ Tuubaa gaara ko seeni aajo ngir mu fajal leen ko sëriñ bi daana wàññi ay tëjoom ci weeru koor daana faral di ubbi lu bëree bëri di jàkkaarloog jaam ñi di leen soññ di leen soññaat seen digganteeg seen borom bu weeru koor bi daan jub si ba ñuy toll ci seenu bu njëkk sëñ Mouhamadou Lamine nee na fa leen di wax ne leen namaat leen pas-pas yi nàmmaat leen pas-pas yi nàmmaat leen pas-pas yi yeesal leen Pastef fii te ngeen xam ne seytaane day yër xol yi di xool naka la leen di gàllankoore ndax xam na ne weeru koor dañ koy tënk dem xam ne dañ koy tënk day gaaw sànni am jiwam ci seen biiri tool tool ya nag mooy seen xol bu fa sànnee jiwam su weeru koor jotee bu fi seytaane nekkul sax jiw boobu day màgg ngeen tayal ci jëfal yàlla suñu borom moo leen daan soññ naan leen du ca yem ak ñoom waaye day yokk seen yitte di yokk seen liggéey di leen yokk ci liggéey alxuraan ak di leen yokk ci liggéeyal sunu borom ci mbooleem liggéey yi nga xam ne mën na leen koo sant foofu itam daaw fa yem ak ñoom daana faral di yëkkati alalam di ko neexalee ñi nga xamante ni ñoo mën alxuraan ngir ñu waajale ko koor gi ba bu waxtu wa jotee ñuy mën di naafi naafila mooy tànn kii naafila te mu doon ku mën alxuraan mu jiite ko ci kanam mbooloo mu leen di leen di naafilaal sëriñ bi daana teglu ay mbana wax nañ ne kër ga boo mosaan ñëw kër gu mag njaareem ci weeru koor day mel ni màggal yi di mel tey ci kër kilifa yi ngir fonkeel gu amoon ci weeru koor soxna Aminta kenn ci soxna yi nga xam ne ci nekkoon ci waañ wi la daana wax ne guddi gi ba bër set taalee du giim maanaam taalee duñ fay fu ñu toll dañuy xamb guddi ba fajar waxtu woo yegsee ci kër sëriñ bi fekk fa bernde yi di tege naan yu sedd yi nga xamante ne dafay doon yu mën a jëfandikoo ay bërigo la daan doon ci kër gi ñu tasaare ko kees goo dugg fekk fa loo mën a barkeeloo xéwal di saawaan ndat yi tàndarma ji kafe gi ataaya ji lépp day daw ci kër sëriñ bi waaye sëriñ bi du ca yam ak ñoom bu ñuy barkeelu ci xéewal yooyu muy génn di leen teral ci jëmmi boppam ji ndax jëmmi sëñ Tuubaa gis ko wax nañu ne moo dàqaleem ci gémmiñ neexit woowu jëmmi sëñ Tuubaa daan am nag daana ci faral di neexal murid yi ci waxtu bu dog jotee bu waxtu dog ba ñëpp di barkeelu sëriñ bi génn ñuy xool jëmmam ja dana leen regg ba du ñu soxlaati sa xéewal yooyu lu ca yem ak ñoom bu waxtu guddi jotee daana génn di jiital boppam la ci soxna yi nga xamante ni ñoo ne ci kër gi wax nañ ne daawuñ ko gis waaye dana am lu dox ci seen digganteeg moom ñuy dégg kàddoom muy jàng alxuraan ñuy xam ne kooku jëmmi sëriñ bi la waaye nag loolu yi doon na ko def ngir dundalee ko weeru koor ngir digganteem ak weeru koor ak kóllëre goo xamante ni am na ko ak kóllëre goo xam ne am na ko ci digganteem ak yenent bi alayhi salaatu wasalaam daana ci jàng ay xasida moom sëriñ Tuubaa ndax ni ma ko waxee yaa day fi moo ko bind jamono yi muy bind xasida yooyu dina ci tumuranke ji su mosaan di bind day booleeg di jàng alxuraan ci làmminam jat yi tax too lisaani jatlu dafay bind ci loxoom di jàng ci làmminam su ko defee nag dem ba nga xamante ni guddi gaa ngi tàmbalee lëndëm mu jël kaalaam takk ko ci ndiggam xasida yi mu doon bind ci bëccëg gi mu di ko yëkkatil boppam ñu di ko dégg waaye wax na ne sunu borom defal na ma ci tawféex joo xamante ni air yi ñu daan yamu daan jàng foofu ci malaayika yi la ko daa déggee ndax loolu lu baatinu la waaye nag nee na bi mu dellu seen njaareem sunu borom def na muy dox di dégg ñenn ci mag ñi di ko jàngewaat kem na mu ko doon jànge waaye loolu mbirum boromam la waaw yi nag la ko daa defloo bi mu ñëwee njaareem gannaaw jullit farata gu nekk danañ jàng yaa xayra day fi gannaaw jullit farata gu nekk danañ jàng yaa xayra day fi ba ni koor gi di tollee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar kon loolu yi bokk na ci ni sëriñ bi daa dundalee weeru koor waaye nag wax na ne def googu mu ko doon def waral na sunu borom dénk ko ci ay may yoo xamante ni ay jagleem la yu mu am ci digganteem ak boromam ndax nee na Euh, sunu borom defal na ko ci mbégte ci weeru koor chahriya chahru ramadana jamaha liyal munaa nee na sunu borom dajale na ma ak mbégte mi gën a màgg waaye mu mu koy defalee ci weeru koor ak weeru gàmm nee na itam yaquudu li mu siyaami mux jila sa'yin wa xiyaam wa fawqa ajrin zi xiyaamin inda xadimi xuddama nee na sunu borom defal na ko ci weeru koor mu am ci yiw woo xamante ni moo gën a kawe yiw ki dëkkee woor te dëkkee naafi la yiw wu gën a kawe loolu sunu borom defal na ko ci nee na itam barke bi doomu aadama yi di wut ba waral ñuy daw di sonn ci gannaawam sunu borom mu mu ko defal man Serigne Touba waaye ci weeru koor la mu ko defalee wajaxali chahru siyaamil barakaat fi sakanaati abadan wal xarakaat nee na ci ñàkk yëngu maanaam ci weeru koor la ma sunu borom defalee barke bi nga xamante ni moo gën a màgg wax ne itam yaquudu li chahru rabiil awali wa ramadaana moo fi man ku la wali nee na li nga xamante ni moom la ma wali di ñeewee man Serigne Touba sunu borom ci weeru koor la mu ko defalee bu weeru koor mosaan jub si sëriñ bi nee na yàlla dafay mel ne dafay gësam garabu ko yiw muy tabbi di dotti ci sama kaw man sëriñ Tuubaa jëzaba lii chahru ramadaani lii karama baaxin karimin faana inin saram nee na weeru koor day sotti ci man ay xéewal yoo xamante ni kenn xamul nan lay toll waxoon naa ko sànq wax na ne chahida li chahru siyaami wa rabih bi rab xubbi rabbi wa ma mabih weeru koor ak weeru gàmm ñoo may seere ci yàlla ne man ahmadu ku bëgg yàlla sunu borom la fii ramadaana fa shukri ana neen alquran sax sunu borom may gi mu ma ko may moom ma ko defalee ci alquran kon sëriñ bi mboolem loo xam ne doon na ko sàkku ci boromam mu ngi ko amee ci dara darajey weeru koor mu ngi ko amee ci darajey gàmm mooy bisub yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ñu ngi ci soññaan ñëpp di leen ci dénkaat ñu gën ci farlu te gën ci góorgóorlu bu baax a baax te xam ne weeru njëkkante la weeru góorgóorlu la weer la woo xamante ni ku ci sàkk lu baax sunu borom daan la ko defal ndax lim gën a fonk mooy alquran ci weeru koor la ko wàcce bis bi gën a màgg ci bis itam mooy laylatul xadar ci weeru koor la nekk kon nañ ci góorgóorlu bu kon ñu dikk ci yóbbalu bis bi yóbbalu bis bi nag dañ ciy tànn tey ngir waxtaan ak nit ñi ci li nga xamante ni mooy ak yàq yàq nag du lu sunu borom bëgg waaye nag teral sa njaboot ak dimbali ñi nga xamante ni nga leen tane ci weeru koor loolu suñu borom lu mu bëgg la ndax dana ci am ñoo xamante ni li ñuy wax chaque jour ne ku yàlla dénk lu fees benn biir kooka sa jëmmi bopp la waaye ku yàlla dénk lu suur fukki biir kooka dalaa booleeg doomu aadama ngi nga war leen dimbali am na ci nag ñu yàlla suñu borom mën loo dénk leen barke kooku yi boo mënee fexe ba yóbbaale kenn ci weeru koor war nga koo mën a def ndax da ci gis koo xamante ni dana jël lu mat deux cent mille francs def ko ci benn jotaay wala jël lu mat cent mille def ko ci benn jotaay ngir benn ndogu te nga xam ne cent mille francs yooyu mënoon nga cee ndogu yow ba noppi quatre-vingt-dix-neuf personnes kenn ku nekk nga jox ko ci lu mu ndogoo te xam ne sunu borom mi la dénk loo ndogoo mën ngaa romb ci sa buntu kër koo xamante ni ab sac lay woyee waaye yoru loo xam ne mën na koo ndogo mënoon ngaa góorgóorlu nag ci weeru koor woowu defal ko ci lu baax ni ma ko waxee léegi sunu sëriñ day di sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul li mu ñu jàngal ñun mooy bi mu nekkee ci xat-xat yooyu ca Mayomba ak ñi dund ca xat-xati kooram yooyu daana amul woon lu muy doggee lu dul xobu garab waaye bi mu dellu see fii ci njaareem ba suñu borom dénk ko teraanga yi dafa daal di sant Cheikh Ibra Fall ne ko nag fas yéene di terle ci weeru koor moom sëriñ bi danaa teerle ci weeru koor benn yooyu ko Cheikh Ibra Fall daan andil gan gu mu fonk gu nekk daana la ci jox wax nañ ne kër gi itam ay mbana la daan feese dell comme ni ma ko waxee léegi jotaay bi bernde yi sëriñ bi da ko daa def guddi ba bët set kon képp kuy murit di roy ci sëñ tubaa war ngaa góor góorlu ba li ngay am ci weeru koor woowu nga fexe ba bokkaat kook jaami yàlla yi fexe ba bokkaat kook doomu aadama yi ngir jëmmi weeru koor ak ngir jëmmi sëriñ tubaa xadim rasul kon nan fexe ba xam ne weeru jàppalante la weeru dimbalante la sunu borom kat wax na ne képp ko ko woor yonent bi ay salaam nettali nañ ko képp ku ko woor ba weer wi jàll sunu borom dana la goreel sunu borom dana la jéggal sunu borom dana la defal yërmande man saama shahra ramadan man saama ramadana imaanan waxtisaaban xufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhara képp ku woor weeru koor ba mu jàll te woor ko ci ni ko wooree sunu borom dana la jéggal dana la gore ci sawara waaye nag dimbalante lu ci am solo la dimbalante lu ci am solo la ku yàlla dénk lu suur benn biir dalaa dénk ngir sa jëmm waaye koo xamante ni dalaa jox lu suur fukki biir xamal ne dalaa booleeg doomu aadama yi te ëllëg kat kenn ku nekk da nga taxaw ci sa kanamu borom benn dërëm bu mu mën ci doon foo ko mën ci dugal sa diggante ak sa borom dana ko lijjante kon nag li ñuy am nañ fexe bokkaat ko ak doomu adama yi ñi ñu tànn te mën leen dimbali ñu di leen dimbali weeru koor weeru dimbalante la weeru koor weeru jàppalante la nañu ci góorgóorlu bu baax a baax te lu ñuy am ñu bokkaat ko ak jaam yàlla yi yàlla borom defal dégg ak topp yaa xayra dayfin naafila bis bi dafa wax tey ne képp koo xamante ni julli na ci képp koo xam ne julli na ci juróom-ñetti rakka rakka bu nekk mu tari ci faatixatul kitab ak isa jaa nasrullahi juróom-ñaari yoon mu nekk képp ki def loolu suñu borom dana def yoolam mu nekk yool boo xamante ni yool bu màgg lay doon boo xamante ni dafay mel ne ku saraxe junni yu dërëm ak goreel ay jaam ak dundal mbooloom nit te itam sunu borom dana nangu kooram sunu borom dana ko musal ci safara dana ko musal ci lori àdduna ak lori alaaxira te yowmal xiyaamee yàlla dana ko booleeg ñi nga xamante ñoom la yàlla doon wax naan leen laa xawfun alayhim wala hum yaxzanun bu leen ragal te bu leen déngi déngi ñooñu la ko suñu borom di booleel mooy bu ëllëgee xelam dana fa dal te du fa gis dara lu muy ragal te itam yàlla dana ko wax bu ëllëgee mu ràmm ay nit ñoo xamante ni ñu waroon a dem sawara lay doon ci darajee naafila boobu naafila naafila bi nekk juróom-ñetti rakka rakka bu nekk benn fatiha بالبسر والمداد أهلا وسهلا وترحيبا بلا